ci union bi ñuy wax ci turu union bi di nuyu sunu mbokk journaliste yi nga xamante ni ñoo ñëw wuyu ji wuyu si ndaje bi ma yaakaar ni am na loo xam ni bi président de la république toogee foogoon nañ ni nit dootul xalaat lu mel noonu parce que président sëriñ Mboup lépp loo xamante ni war na ko ci union chambre du commerce ci loolu la nekk bërki démb le 23 février bi passé mi ngi woon Paris ak ministre Aly Ngouille Ndiaye actuellement mu woote réunion la kat am invitation buuru Maroc foofu ci Maroc mu daal di def déplacement dem bind wax ni nañu annuler réunion bi monsieur le ministre Abdou Karim Fofana ni président Serigne Mboup amuloo droit di annulé annulé réunion bi moom loolu du rôle parce que bëri na ministre commerce yoo xam ne jaar nañu fi ci nguuru Macky Sall mosuñoo lijjanti loolu kon ni union bi di doxee moom dafa wane ni Ablaye Sow bi président chambre de commerce bu Dakar bi mu ñëwee ba léegi dafa mel ni côté am la nekk wax kenn du ko raay da ngay wax ni mu demee euh, li nga xamante ni moo am ba des mooy président de la république na xam ne nit ñi bañuñ ko nit ñi contruñ ko mais dafa bëri ñuy ànd ak moom ñoo xam ni gëmuñ ko ndax lu ko lu koy yàqal la ñuy def ndax Ablaye bu amee fitu def association malfaiteur am ay nit yu mu àndal dem ci union bi ni dañuy tenir benn réunion pour remplacer président Serigne Mboup te loolu yoon may ko ko loi may ko ko du code procédure pénale du lenn loo xamante ni moo ko may fit boobu kon bu demee ba am fit bu mel noonu ministre Abdou Karim Fofana moo nekk ci ginnaawam. Euh, beneen bi ci topp ñu ngi jaajëfal di remercier ki nga xam ni mooy directeur commerce intérieur ci taxawaayam bu rafet ci encourage am encouragement ak ci détermination bi mu ñëwee wane na ni kenn saxalu ko suukar dafa wax liñ bëgg a def teguwul ci yoon teguwul ci charte teguwul it ci li nga xamante ni moom la euh, union bi di doxee ba tax na moo gàntal loolu kon kooku dañ koy jaajëfal dafa wan ministre am ni ko bu fekkente ni nekkoo ci loo xamante ni du yoon wala nga bëgg a def posting ñun duñu ci ànd ak yow yaakaar naa lu mel ni ministre de la république bu demee bay jiite loo xamante ni affaire banditisme la affaire criminel la kooku président de la république waratu koo bàyyi ci poste boobu am na loo xamante ni nag réew mi du ñu bàyyi kenn di yàqal président de la république parce que ñun président de la république la ñu àndal ñun duñu def lenn loo xam ne day yàqal président de la république kon bu ñu gisee lu yàqal président de la république dañ koy dénoncer li nga xamante ni mooy secteur commerce bi li fi xew ñëpp xam nañ ko euh, di jàppale ñi nga xamante ni mooy naar yi ak yeneen xeet yi bàyyi sénégal yi di par parparloo ci secteur bi di profitoo mel ni président de la république dañ ko wax ni day daanu kon président de la république na jël ay matuwaayam ci Abdou Karim Fofana di ko wax ni cuuc day xam lekkam munu fee nekk ñëw fi barki Demba Ndiaye ñu tudd ko ci ay luubal yu bari ci post yu mu jot a jaar ci ay immeuble yoo xamante ni alal ju bari la yoo xam ne am nañ ci ay preuve am ci ay firnde nga bëgg a ñëw tey nekk ci ginnaaw Ablaye Sow mi nga xam ne jël na lu mat fanweeri nit yóbbu leen ci sàmb ci euh, organisation salon bi am Maroc ñuy tëdd ka nelaw kenn jaarul foofu ku ci nekk personne bu nekk fayal nañ la deux millions ci ay frais kon loolu lu ko gën a ñaaw amul ba pare la république ñi ngi wax jaloog bi nga xamante ni woote nga ko secteur commerce bi di union bi ak ñi ko wër incha allahu rabbi dañ la tàllal loxo pour nga invité leen ñu ñëw joxe ci seen xalaat ci ni ñu bëgg commerce bi demee président de la république sénégalais yi nekk fii di liggéey di bay seen waar nga xam ne ay doomu commerçant lañ ñi nga xamante ni dañ leen a fekk démb ñu suur tey doog a ñëw ndax géej am na ndox te taw taxul ku mel ni président Serigne Mboup amul lenn lu ko nit mën a jaay wala ngay jël ay kàcc di ko teg ci kawam du nit koo xamante ni day def loo xam ni àndut ak yoon réunion am na mu woote ko la kat war dem Maroc ci loo xam ni moom ministre Aly Ngouille Ndiaye ñoo fa nekk actuellement di siggil Sénégal di siggil réew mi nga ëlbatiku jël sa responsabilité nga wax ni nañ ko dindi fa mu nekk yebal ay nit pour ci sa teeyu bakkan def ko ci sa coobare bopp te loolu amu ci benn benn benn responsabilité kon dañ koy mettitlu di ko naqarlu di wax président de la république ak premier ministre Amadou Ba nañu woo ki nga xam ne mooy Abdou Karim Fofana ñu yemale ko parce que chaque chose a ses limites am na loo xam ne moom dootuñ ko nangu président Serigne bu ci am démocratie ci am bañ a force physique moo tax mu bàyyi leen ñu tenir réunion bi foofu waaye waruñu ko fa woon tenir kon kàddu yi lañ ci tëral di féliciter ki nga xamante ni mooy Mor ci kàddu yi mu yëkkati. salaamaaleykum euh, Serigne Djily maa ngi lay nuyu bu baax di la remercier si dalal bi ci Bawal Info di wax rek ni président de la république Alaaji Macky Sall dafa woote gouvernement fast track jël ay ndaw teg leen ci ñu yaakaar ni ku mel ni Abdou Karim Fofana. liñ ko jox ministre commerce dafa diis ci moom trop trop ba tax na aussi euh, am na ci commerçant yu bari yoo xamante ni kontaan nañu ndax amul kenn koo xam ne bu nu bëggee jokkook moom wala jokkoog département am danañ ko jot beneen bi ci topp it mooy dépôt yi nga xam ni ci dëkk bi mi ngi mel ni déyu béy golo goo jàkkaarloo wala ko dendal mu woo la di la ko proposer di la ko jaay ay mille tonnes deux mille tonnes trois mille ton loolu siggalul commerce bu Sénégal siggalul président de la République euh, ñu yi chambre de commerce yi nga xam ne mu ngi nekk di ko lijjanti loolu du rôlam parce que am na ñoo xamante ni ñoo nekk ci am di ko pompe pour loolu yaakaar naa nag ndox moo fekk mu taaju bu ñu koy puus bul nangoo jiitu kon monsieur Abdou Karim Fofana dañ koy wax na dal na teey te xam ni am na ci loo xamante ni siggalul président de la république siggalul gouvernement président Macky Sall ki nga xamante ni mooy kilifaam di président Macky Sall ak euh, monsieur amadu Ba war nañu am ay réaction yu ñu def waxtaan ak moom Abdou Karim Fofana parce que secteur commerce bi suuxee na torop fii nuy wax ak euh, yéen am nañu lu ñu metti ndax ñun président de la république képp ku mu nommé par décret dañ lay défendre di la jàppale di la saytu ci li nga nekk waaye moom Abdou Karim Fofana si gëlul président département bi ñu ko jox yéeg na ci boppam trop trop Euh, am na ci lu bari loo xam ne mu ngi koy toppatoo ci affaire chambre de commerce ak affaire union des chambres de commerce loolu du rôlam du liggéeyam euh, kon nag am na ci lu bari loo xamante ni bu ñëwee bëgg ko attaqué wala bëgg ko def kon day jaaxal ñu bari ñu nekk ci secteur commerce kon Abdou Khadre kàddu yooyu la ñu amoon lu ñuy yëkkati.